jërë ngeen jëf mbokku internet 313 digital ginnaaw bu nu leen nuyoo nu daal dikk ak yéen ci xibaar bu yees ci mbirum Ahmed Aidara moom Ahmed Aidara maire bu Guédiawaye fan yi nag ñu ngi daal di tudd ci moom dafa am li nga xam ni moom mooy benn soupçon de scandale financier jëmale ci li nga xam ne nag moom mooy ci anam bu nu gérer mairie bu Guédiawaye ginnaaw bu nu sukkandikoo ci xibaar bi di bis bi mi ngi nuy xamal ni dafa am benn virement bu toll ci 79 millions 986 mille. millions di trésor public bu nu daal di viréel benn entrepreneur bu jege lool ki nga xam ni moom mooy Ahmed dara ñoom nag lu nu jot a xamal ni nee na loolu dafa daal di nekk benn erreur bi nu yëgee information boobu la li nga xam ne nag moo di Cour de comptes daal di fas yéene amal benn auditeur maanaam càmbar anam bi nu yoree lii di mairie bu Guédiawaye suñu fàttalikoo bu baax a baax agenda boobu ñu ngi ko dooree 2022 jàpp li nga xam ne nag moom mooy 2023 mbir moomu mi ngi daal boobee ba nu amalee benn virement bu toll si 79 millions 986 mille si euh, li nga xam ne nag moom mooy trésor public ci compte ki nga xam ni moom mooy Ibrahima Ndiaye nag noonee aussi ay dara moom dafa nu waxoon ni dafa daal di lancé li nga xam ni moom mooy euh, benn appel d'offre ñeel li nga xam ne nag moom mooy fourniture scolaire si xaalis bu toll ci 979 millions 983 1300 euh, francs naka noonee naka suñu ndaa di xam ni loolu am na lenn lenn lu si indi ab lënc lënc si entreprise bi nga xam ni moom mooy comptoir commercial baax naka at wii nu weesu ñoom nag loolu ñu ngi ko amaloon ak société bi nga xam ni moom la ñuy woowee Sotrel naka année bi nu weesu kii di Ibrahima Ndaw moom mi nekk secretaire général ci Babacar Gaye moom moo doon defal li nu mel waaye actuellement nag bi mu defee li nu mel dafa mel ni ku juuma ci moom mooy euh, numéro bi ndax euh, numéro compte li nga xam ne moom mooy euh, société Sotrel moom la ci daal di def li nga xam ne nag mooy trésor public pour ko viréel li nga xam ni moom mooy si moom mooy xaalis boobu ci compte bi ñoom nag ñu daal jàpp ni loolu ab erreur la kii di maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara moom moo daal di yëkkati li nu mel la nag noonee nag moom jot nañu xamal ni jot na contacter ki nga xam ni moom mooy entrepreneur bi waaye ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci information yi ngi nuy jot def yàlla mooy koppar googu jotul àgg ci eh, ki nga xam ne nag eh, moom mooy Ibrahima Ndaw moom nag mu ngi nuy xamal ni dafa daal di nekk ab entrepreneur boo xam ne yàgg na liggéeyal li di mairie bu Géejawaay moom moom Ibrahima Ndaw bu nu sukkandikoo ci ay kàddoom mi ngi nuy xamal ni dama nekk opérateur économique bu yëngatu eh, ci wàllum lampadaire moom Ibrahima Ndaw bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ba tey mi ngi nuy xamaa ni lu toll ci 654 lampadaires maanaam lu toll ci 71 millions 940 mille jot na ko daal di euh, liggéey foofu 500 poulets toll ci li nga xam ne nag moo di 2 millions ak 6 tonnes de dette lu toll ci 14 millions 9 tonnes de sucre 9 9,9 millions de travaux ak li nga xam ne nag moom mooy liggéey bu ñeel wàllum bureau ci foofu ci mairie bu Guédiawaye toll ci li nga xam ne nag moom mooy 2 millions ak lépp loo xam tey ji wàllum domicile la mu toll ci 9 virgule 5 millions l'entrepreneur boobu aussi mu ngi ñu jot a évoqué la jot na daal di teg lépp loo xam ni ci loxo Ahmed Aïdara mu toll ci 7 million 15 millions 4 millions 2 virgule 5 millions ak 50 mille 10 euh, millions ci li nga xam ne nag moom mooy benn proche bu ñu daal di woowee euh, kii di Omar Sy en tout cas mbir mi commencé na compliqué ci Ahmed Aïdara en tout cas lépp loo xam ni wàllum information bi dana leen ko daal toppal bu baax baax ak rapport cour Cour des comptes bi caytu bi nga xam ne mi ngi koy amala foofu ca mairie bu euh, Guédiawaye fan la war na mu mujjeek gëtam est-ce que moom Ahmed Aïdara dinañ ko daal seetal bu baax wax wala tey ji luñ koy daal toppee euh, moomee rek moo daal di laale ci mbir mi ci foofu ne daal wàccee suñu kaddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax wa leen di suivre 313 digital leen jox dig daje si kanam tuuti ak yeneen xibaar